maa noo jongama wee nii tey mais macha allah yaa ngi lay wax si nii nday noo ko gisee. non gars yi dañ la attaqué. mais nag mais nag yaa xew. mais yaa tëgg bis mag nag xew. barke def clip bu bees. ne xam ne dëkk bi li xew doy na. am ma jaar may la ma jaar. jalousie bi dafa bari. dëgg neexul. xaar xaar xaar ne. ndey. li ma naan sama maa la le vingt le vingt et un. Ah, dëgg neexul. Ah, ah, mais Vivi. ci dix jours ci dix jours. Vivi mais loolu kenn mësu ko fee def. mësul am. xam nga daan jàpp deux mois un mois. waaye nag borom bis bee ni mel. moo ko liggéey leen ko yaa ko liggéey. mais démb gis nañu mu daal di ñëw répétition def relax robam bu ne muut di wàcc réseau yaa ngi toj. waaye kii kii kii loolu yàggee na ko. kii loolu yàggee na ko. Uh-huh. sama xarit bi. mais le 20 ak le yomb de. déggoo ma ne la le 20 xale yee ko moom le 21 nag ñu baal. Uh-huh. grand baal lan wax. Uh-huh. waaw bu ko defee chemise yi génn robe yi génn. bu <laughs> costume yi génn. dëgg neexul. maa la ko wax. ñuy fête li nga xam ne moo di 24 ans de Jolof Band. yow yàgg nga ak l' équipe de Jolof Band lay wax ci loolu. waaw di ci kontaan nag ndax 24 ans loolu yombul. ma yor Ndeye Gueye bu ne vingt quatre ans ku ne gisoon na vingt deux ans yi mu wàcc waaye vingt quatre ans lañ wax ki ren gisul mës a gis dëgg ndax bu ne vingt quatre ans Jolof mhm. Band dëgg la kooku Viviane xamuñu day jaar ci jaww ji mhm. doy na waar de ak lu war a sol kenn xamul fu mu ji kenn xamul lu war a sol <laughs> kenn mu sëñ si mel. ans du 24 jours. du 24 du mois. maa la wax donc c'est quelque chose. mu baax nag waaw. moo waral groupe bi boobu ba léegi muy dem. ku ne jaar na fi nag. Mhm. waaye nag borom bis ni mel li may wax mhm. rek. Mhm. ku ñëw sa la nga fi. ku ñëwul sa wàll nga fi. dëgg la le 20 ak le 21. gars yi tegal sa baaram foofu. léegi nag nday mbill gaa ngi nii. waaw te xam naa ne gars yeeg ñuy xaar. dañuy cof rek. waaw dañuy cof rek. mais maman Fifi jalousie bi mu ngi wàccee réew mi. waaw noonu la waaw dafa xew jalousie. mais da nga woy thème boo xam ne ñëpp nga koy dund. da nga da nga da nga dompat fi nga xam ne moom la sénégalais yëpp doon jooy ndax nee naa la jalousie Sénégal moom yaakaar naa ne mooy seen deuxième tour. waaw mais jalousie inspiration jalousie. waaw di ko dund rek samay morom di ko dund sénégalais ñëpp di ko dund. Mhm. mu xew lool nag. waaw mhm. moo tax nag euh, ma woy jalousie pour euh, euh, ñu bàyyiwaat ci xel rek amul. Mhm. amul àdduna amul solo. àdduna jeex na ba pare. dëgg la nañ ko rafetal. parce boo xoolee fii loo fi yor. lu mu bëri bëri da dem bàyyi ko fi dëgg la lu mu néew néew da dem. dëgg la donc euh, fii àddina la te wërsëg euh, sunu borom bi moo koy bind. Mhm. ci ci nit ki. donc euh, nañu nañu nañu bàyyi xel ci loolu te xam ne ku ci nekk rek sa wërsëg moom ngay lekk. Mhm. non <laughs> su jeexee jeex na. Mhm. liñ naan su jeexee rek jeex na. yaa ngi dégg donc moo tax ñu. jalousé mu mm-hmm. bokkoon nag ci ëpp mm-hmm. nekk su jeexee jeex na mm-hmm. liñ naan su jeexee rek jeex na yaa ngi dégg donc euh, moo tax ñu ñu def jalousé mu bokkoon nag ci ëpp e bi nga xamante ni moom laa war a génne di ko benn bennal nag di jël sama temps waaw ëpp e bi di leen ko jox mu ma rek mois bu nekk rek ma génneel leen benn clip. Mhm. incha allah. Mhm. Euh, jalousie nag ma gis euh, ñëpp gis ci seen bopp. Sénégal yëpp kay voilà euh, Philippe tamit ñëw génne maa ko nopp. Mhm. ah. c'est dommage newu fi kon ko moom it. voilà mais mu ñu ne star bu bees moo daal di ñëw bu Philippe bi. <laughs> non le yàgg na ci game bi nag. macha allah li ko pap wax rek bërki démb mhm. ne ko bi nga nekkee xale nga commencé euh, te loolu la yàlla dogal macha allah mu bëgg musique torop nag mhm. euh, di ko dund mhm. euh, te mi ngi liggéey mi ngi jàng mi ngi liggéey mi ngi nekk diggante Amérique ak ak Sénégal te am na yu bëri yoo xam ne mu ngi koy pare incha allah mais mën nañ ko xaar Sénégal mën nañ ko xaar waaw du yoo bi sur scène le vingt mais oui Philippe dina woy incha allah mais mais mais Vivi dañoo bëgg euh, xam euh, euh, intitulé son bi jalousie lan lay définir ba nga dem ba choisir thème bi ba ba di ko may sénégalais aussi. mais jalousie. Ah yow tamit c'est clair jalousie c'est jalousie. jalousie jalousie jalousie c'est jalousie. ayca sañse yi ñu gis ne Viviane bu xewlee tout le temps dañuy sénégalais yi dañuy yàqamti mu génn nag xam nañ ne tendance day ñëwaat xam nañ ne mode day ñëw te xam nañ ne di nga sol te da nga fonk sa bis. waaw loolu dafay leer nag. ndax euh, musique moom am ak mode ñoo ànd kon nag euh, xam ngeen ne euh, ñaar yëpp dinañ leen ko jox incha allah muy ci bu xale yi di ci bu mag yi. Mhm. mais mais mais Viviane nañu ñëwaat ci jalousie parce que gis nañu interview bi nga def ak Pape Cheikh Diallo biir TFM yaa ngi xamal ne kat que sénégalais que dama dund jalousie. moo tax son bi moo tax. boobu ah, aussi bu ngeen xam exactement lan nga ci jot a dund benn difficulté boo xam ne marqué na la touché na la de telle sorte que ma war koo mën a euh, def comme thème waaw mënu ma ci joxe benn ndax euh, man xam nga nit bu siiw laa te benn bu ma ci am rek Sénégal ñoo ko bokkandoo mm-hmm. kon ba ma ko laajee xam nga ne jalousie bu ma dund rek mu fës yéen xam ngeen ko. <laughs> ah loolu nag euh, voilà mais beneen beneen question bu ñu bëgg a xam aussi tamit. d' accord eh jël leen léegi. non non man man garaawul man organisatrice laa. waa léegi oui yaa ngi pare yàgg na man pare naa yàgg yow moom say t-shirt ngay jël. nekk ci stab bi stab bi yàgg na. exactement waaye bu coow li bëree du yow bu liggéey bi bëree yow la bu xaalis bi bëree yow la bu chèque yi gaawee yow la waaw noonu déggee barke de tudd yaa congu ma waaye loo naral xale yi yow ah man gëj naa lëmbal rek mais fii foo ma lëmbal xam naa ni moom damay lëmbal pare papa dóor ma jaas day def day def añ di day def jël leen ko prise bi rek lii tamit lii tamit lii. jël ko jël ko. Ah, ok jëf jëf. Thank you. dëgg la sama waa ji sama waa ji bu coow li bëree du yow bu liggéey bi bëree yow la bu xaalis bi bëree yow la bu chèque yi gaawee yow la noonu déggee barke de tudd yaa conguma tey waaye loo naral xale yi yow ah man gëj naa lëmbal rek mais fii foo ma lëmbal xam naa ni moom damay lëmbal pare papa dóor ma jaasi moom mais foo ma lëmbal la benn lëmbal bu ndaw papa dóor ma xam gën a xam sax papa du la dóor yow yaa ma gën a xam sax. papa yow lay wër. yaa sama waykat bi sama gars yi kii ni mu noobaatee. wuy <laughs> ma. te ndeygeeykat. Ah. lan looy bu ma de bu ma de. day toog tuuti rek naan allo papa. <laughs> ay mu ma yàq. Viviane naan allo naan kii. waaw bu yàq ma yàq. dafa nobaate daal papa. xaaral ma paas la Viviane. su ma ko nee xaaral bi. loolu tuuti waaw comme ni nga ko gisee noonu mbokk internet si Siweulko TV Kiné Badiane a ngi noonu. Euh, Jabar Xaadim Zoer comme ni nga gisee noonu noonu gisoon ngeen temps yëpp coow li bëri woon na lool si moom waaw. seet te te te te te noonu. ah bëri na ci biir sama fu ah dafa. waaw ba pare doon enjoy waa ambiance bi. vraiment yéen jàppoon ki daa mel ni mu ngi xale yi mënatuñ mënuñu ko de. si doon ne man nga ne ngi nii. ah ki ne naka de xale yi xale yi mënuñu la de mu xale yi mënuñu la de. c'est ma ne yi mënuñu ko de. déedéet. benn yoon. noo gisee baara bay la dafa wala nu mais mais mais mais li Viviane fecc gis nga ko. mais Viviane man ma woon ne mën na fecc. ah waaw baax na tey de surprise la def gars yi moom. mais jalousie mu ngi toj dëkk bi. ah mais fii wàcc na yow. daa mel ne da ngaa taal. non masque da doon dugal vidéo waaye fii wàcc na. masque daa bëgg vidéo rek. masque da mu ngi nii da doon dund vidéo. mu ngi rajaxe dëkk bi. waaw waaw lala lala siiwal ko nga xool. ma dem siiwal ko xaaral ma dugg. nekk yaa ngi yàq sama image. seet te te te te. ki nekk noonu lii lii lii lii imaam bu xeere la ñoom ñaar ñii ñaar ñii xeere la waaw seetët xale yaa ngi ni ñi ñoo jël relève bi te mbindul moom man rek lay laaj sama ay gine ngoon ay gine ngoon yow kooku gine la coow li bëri na lool si moom waay kooku gine ba jàll la kooku gine ba jàll la si répétition bi laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah waa mbirum li ba jàmm la jalousie danañu dana am ah. lii moom répétition maa ngi